ñi ëpp ci ñi daje ci bërëb bile dañoo am cofeel ci welow ndakaaru yépp nag benn marché bile dong moo fi amal lu ñu mën a duppe ni luuma welo di am nag dimanche bu jot marché bi nag mi ngi diggi ndakaaru diggante mbedd Elimanel Fall ak bii di Galandou juuf bile bërëbu jënd ak jaay nag welo ak jumtukaay ya muy àndal ñoo fi ëpp solo leneen lu mën a doon. boo yu jógee ay jeejawaay Pikine ah fii ba fii ba Tëngéej fii ba cees waaw booy ñoom pédale rek la ñuy def parce que fii moom léegi ay jeunes rek ñoo amee paa yi sax moom léegi bon ay quelque waaw su kee daal mooy suñu ancien fii ganaa xalifa waa fii daal fii daal boo xoolee daal ay jeunes jeunes yi daal ñoo fi gën a bari. ay 2015 yooyu daal commencé ñëw. mi ne dëggaay ngaa commencé indi sama vélo fi di jaay. pièce su yi original yi lay doon rek am na yoo xam ne moom mënoo dem ci boutique fekk ko yooyu la rek moom moom fii rek nga koy mën a amee pièces yu bari yenn xeetu pneu yi yenn xeetu euh, euh, kii manuel yi ak xeetu jante yooyu yëpp ci wàllu velo fii rek nga ko mën a amee dinay faral di am ci yeneen boutique yi mais rarement. bi day cher fii daal lay tane quoi. welo dafay suuxat di gis-gisu ñenn ñi seen xam-xam màcc ci wàll wi jumtukaay bu woyof la mën la yóbbu fi nga jëm te loole yépp ci waxtu yu ci Arona Saaw min lol bërëb bi di ko dëggal ndax fanweeri at ak juróom-ñaar mi ngi nile mu fiy er ñëw. ma indoon sama vélo quoi vélo ci laay ci laay course quoi dama ay xar tax jënd wala sama jënd des fois moom laay doxee mooy samay tànk quoi. marché bi li nag soo bëggee welo tan bu la neex la lépp mi ngi fii ci xeetu jumtukaay bi ak la mu làmbool njëg yi nag mën nañu wute ci baaxaay ba wala sax ci la mu néew ngir teg ko bët. amul prix fixe pièce moom dina dem vingt mille ba vingt yi waaw.

mel na ni yow loo am rek fii mun nga am welo waaw soo ñëwee defal la xewal hmm. waaw non man sant maa ngi fa lii may jaay maa ngi jaay welo un million ay deux cent mille trois cent mille welo bi nii man maa xam moom welo boobu welo bu rafet la mais trois cent mille laa ko jaayee sant maa ngi fa rek am dafa am ay qualité quoi moo tax welo jaay nga welo un million man damay jaay welo un million ba damay jaay welo huit cent mille ay carbone lay doon carbone marché bi le nag lu yàgg la fi ñenn ñi sax dañuy wax ne laata Sénégal di moom boppam la fi nekk ba tey lii firnde ne nag ñu bëri ci seen waxambaane jaar nañu ci bërëb bi ku nekk ak li andi du ñàkk sax léeg-léeg nga jënd fa welo bu ñu càcc. fa am na ñoom ne moom dañuy woliyaan si fii dañuy ñëw xam rek juux dañuy rax dañuy rax daal léegi nag bu ñu raxee nag xam nga jóge beneen saa def benn xam nga jëlee fa welo boo xam ne moomuñu ko après xam nga mooy loolu quoi mais loolu loolu wàññeeku na fi quoi wàññeeku na fi parce que loolu xam nga yooyu yëpp. ci jël ay matuwaay. dañ ci suñuy daal parce que yooyu xam nga ñun. ñun anciens yi xam nga yooyu duñ ko fi duñ ko fi nangu mais nag daf fi am ay temps en temps nag rarement rarement nag mu am fi. parce que nga gis ñoo xam ne day jënd ne mbuur la ko jënd indi ko fi pour te chaque jour day ne ko sa vélo moom la mais mu ne ko dal am alal jar moom loo moomul mu nga si mën a jàppal mais bul ñëw naa ma kii am na ko moom sinon dañ si am problème mën nga jël sa vélo teg ko sa place ñu jël ko foofu sàcc ko te soo ñëwee fii mën nga ko fekk am na ñu ne ñu minante suñu biir sa vélo su réeree da ngay déclaré ñëpp nga wax leen loolu la def ndànk rek xam fu ñuy teg seen tànk rek bu ñuy jënd tam ñu jënd ci ci koo xam xam nañ ko quoi di jënd fu fu wóor daal di ko teg ci yoon def ndànk daal ba ñu ëppal lépp looy jënd rek nga xam fi nga koy tamit waaw facture tamit bu mun a am genre yu mel noonu daal moytu rek daal moytu rek. waaw ah, soo yoree sa alal da nga ko a fonk xam li sa alal la parce que alal yombul am da nga koy liggéey am ko mais soo ko yoree da nga ko respecté mais soo jëlee alal sa alal nga teg ko si mbedd mi yaa tooñ sa bopp amoo dara lay wax. ñoom ñi le nag di fi daan seen doole ñàkk ñu ay bëgg-bëgg ngir mën a wëyal seen liggéey. ni mu waree xanaa ñu dimbali ñu ba ba ba ba maanaam bi nekk voie boo xamante bi dañ ñun dañ koy occupé rek pour heure bi koy soxla rek après bu ñu wàccee ñu ñu ñu mën mën ko libéré waat waaw ñun diggante ñu koy ñu koy soxla ci diggante 8 heures ak 17 heures corona ki dañu war a utal ay place ay place fi ñuy jaay ak affaire quoi vraiment xam nga ni ne yoon bi xam nga tali ni dafa metti te xam nga ay borom kër lañu kenn ku ne nga sa dara xam nga te xoolal xool tali bi nu mu naan ak ni mu xatee nii quoi xam nga boo yëpp dañuy ñëw jënd seen matériel yi mu yóbbu xam nga te dafa metti daal bu la ngay utile benn place benn boo a a baax quoi. fee laa fi benn magasin wor yi xam nga di jaay orange ay orange man ak yooyu xam nga di ko fi kii quoi di ko fi récupérer waaw man xam nga dem naa bu benn instant mooy loolu instant bi dañuy taqale rek dañuy débrouiller rek mais lii gënaluñu sax parce que borom magasin dañ koy ñàkkante ñun fu mu toll nii ñoom instant bi tey mënoon nañ tëj sax ñoom baa ñu ñu dóor ñoom bu subaa ñoom ñu tijji lundi beeg mardi beeg semaine bi yëpp ñoom ñu dóor parce que fii ba dimanche mais da gars yi dañaa xaw a iñaan mooy loolu lu yàlla xam doy na gis nga ku nekke yaa ngi ubbi te ñoom ñoom dimanche bi yàqalu leen dara mais xam nga rek dañ koy jéem a xëccoog ñun dañuy jéem a xëccoog ñun kaañ bi daal mais xam nga mais nag yàlla baax na naam bu fekkee ne sax ñi am cofeel ci welo min nañu lool marché bi bëri na ci askanu ndakaaru ñu bëri ñu ko wumpalee